bokkul ak kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ni dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flash card écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité ko suivre ci télévision mooy bi xam ne moo di Bawal TV lundi le 11 septembre ci atum 2023 ñu xëy ñëw ak ci journal sunu lamb fekkati fay affiche am solo Siteu Mama Lamine Tidiane Faye ba ci Abou Ndiassé le VIP de l'Ansar au front journal sunu lamb xëy xamal ñu lu ni mel waaye ba tey ci xëtum sunu lamb après quatre saisons balas nii moom moo di franc moom franc moomee moom moo ki nga xam talfa waaye kontur jéen kay rek xam ne nii moom moo sarko le 17 décembre ci atum 2023 journal sunu bu xëy xamal ci beneen combat bu dox ci diggante ki xam ne nii moom moo gaaro gaar ak xam ne nii moom moo di de Sallo waaye ba tey journal bu yemul foofu xëy ñëw ci ki xam ne nii moom moo di Ibrahima Diop di waaj li nga xam ne nii moom moo di première journée forfait nga xam ne moom moo di arène nationale diggante Mama Lamine ki xam ne nii moom moo di Gora Sock CNC jàpp nañu li nga xam ne nii moom moo di réunion information ce samedi journaliste sunu ramba xëy xamal ñu li mel jamaïcain bëgg na remplir arène nationale le 24 décembre ci atum Boy Kayre journaliste sunu ramba xëy na ñëw ci moom waaye Gambie day dana tàng jëri ci samedi bi di samedi prochain Papa Bari Bari attendu le 8 journal sunu lamb xëy xamal ñu lu ni mel saa waalo ak nga xam ne ni moom moo di Sarko en novembre Sarko numéro 2 en novembre mbir ñi koy suivre lamb actualité te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo TV du kenn bu ma topp waaye ku ñuy dëpp la ko dale Thiès xombal tundangal mag sew kabaak la kër daam kër seer jàllandul ak patar kër Ibra Yaasin sambe gewel sambe gol dalak daaru xafoor siyaare sëriñ ba dellu siwaat Kajoor ak Bawal ngeen communication c'est ma mort ànd ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Green Oken bu baax bi mbokki Sénégal mbokki bitim réew dama doon nuyoo rek ba suba jàmm ñu dellu ci gën a fës ci yéen kaay ak fekk naa na troisième catégorie en gloire ci Baol TV ñu wax ci nu ñu war a traité suuf si bu dee suuf soo xamante ne mësuñ ci bay te mu mës a recevoir engrais de fond bépp xeetu engrais de fond damay natt ñaari bouchon au Green OK yu yemoo 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw suuf si nga xamante ne mësuñ ci bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laataamaa ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. jàpp leen ne boo leen di pulvériser green hockey ci suuf si da ngeen war a fexe ba jox suuf si ferñeent yu mu yellool yëpp bu ko defee ngeen mën a am production bu mucc ayib.